nos trois invités euh, voilà euh, débuter avec euh, voilà si je peux me permettre de t'appeler comme ça Kao, Malik Si. <laughs> Kao, bonne bilan la Ligue Pro. remercier ñi nga pour que ligue bi réussir son championnat cette année féliciter FC bi nga champion à Ligue 1 féliciter aussi Walidan, bi nga xamante ni moom champion à Ligue 2 encourager aussi ñi nga xamante ni ñu ngi wàcc ñi bëgg a wàcc ak ñi nangul wàcc yëpp. Mhm. en Ligue 2 c'est clair ñi wàcc xam nañu leen donc loolu pose problème. Mhm. mais par contre en Ligue 1 jàmbaar dafay wàcc loolu leer na mais apparemment euh, Stade de Mbour dafa ne d'accordul si dernier PV yi ba nar a dem sax tas. Mhm. arbitrage loolu nak mhm. am nañ ci plein droit aussi mais quand même pour le moment ba fi ñu yemagum ni, ñu féliciter Sadem euh, qui, euh, Tëngéej FC féliciter aussi euh, Walidan mhm. bilan bu satisfaisant là, parce que j'ai un championnat bu mu jeex tak et c'était pas évident dans le temps aussi parce que c'est le timing bi respecté nañ ko avant école du tëj championnat bi jeex bien vrai que si so defee une activité ba mu jeex dafay laaj nga toog évaluer ko xool maintenant les points faibles et les points forts. Mhm. ñu ngi suivre di xool di déglu. il y a des points forts en termes d'organisation amélioration am na si sooy xool ren Ligue 1 comme Ligue 2 amul pratique occulte dañ na si complètement xon comme ni ñu koy waxee. Mhm. dafa set wecc sax léegi dañ si. ñaari point noir la am loo xam ne lii ba léegi war nañ si xoolaat ko bu baax a baax ben point noir bi c'est sur le jeu mooy après les rencontres yenn fois day am ay violence mhm. bari sax yu metti sax mhm. lolu warul bok ci football waxuma nak ligue professionnelle lolu dañ ko wara bannir lolu mom point faible la benen point faible bi moy PV yéex a ba repercuter wu résultat du match yi mhm. lolu aussi point faible la ligue pro war nako analyser pour xol lan motax PV yi du génn à temps parce que man lima d'accordul moi PV 7e ou e journée 20 vingtième journée d'accord d'accord aussi mhm. suis de la Ligue Pro c'est vrai mais les d'accord d'accord moi semaine PV on joue les week end samedi et dimanche les feuilles de match sont déposées le mardi le jeudi la commission de discipline se réunit nañ génn PV jour d'accord même jour bi warul tardé. Mhm. tardé bobu mu tardé moo indi ay d'accord d' accord ma d' accord mu mu mel comme leneen la mais sur le plan organisationnel wax deug yalla amna ay amélioration gars yi góorgóorlu nañu club bi avant am amélioration sen organisation commissaire aussi ils ont joué leur partition même si souvent le commissaire est exposé mais quand même ñu ngi def li ñu war def ba nga xamanteni bi affaire bi mën nañu wax ni point positif yi mo upp mais du té point positif lu bari bari bari point noir daf koy yak su fekkee dafa am mhm. surtout la violence un Tëngéej FC Jaraaf un Tëngéej FC Pikine un Tëngéej FC Guédiawaye Guédiawaye Pikine. Pikine Jaraaf lan la si Ligue Pro lan Pro war a def. Pro mu ngi sanctionné. ay mais ay amende lay def. il faut ñu dem si benn forme de sanction man pour man. il faut ñu yokk si nangu ay points. oui le retrait des points tant que amul gars il faut ñu nangu seeni points parce xaalis dañ koy fay. Mhm. ngay amal mu fay nañ nangu ay points mu dellu gannaaw. d' ñu rétrogradé. en division inférieure alors si nous pouvons euh, euh, le club euh, en division inférieure est-ce que tu as dit que Pro devant parce que c'est des choses qui parfois dans le club comme on dit. Kouma am nday ku amul parce que tout le monde dañuy jàpp c'est le giraffe de Dakar donc c'est normal que mbou Petite Côte euh, perte li nga xamné ne point. pour man du giraffe du club bi. lan la exactement pour man c'est le système c'est-à-dire le fait que PV yi yéex a génn mu am répercussion sur résultat bi mais PV bi su génnoon à temps appel yi ñu def ko à temps s'il le faut Ligue Pro bu mu desee trois jours na mu taxaw. Mhm. mu est du defati match. du jouer tant que vidéo wuñu PV yëpp. D'accord. nga que ñu joué vidéo ñu vidé PV yëpp ba mu jeex tàkk def recours def recours ba ñu vidé yëpp jeex. Mhm. après on continue le jeu. Mhm. c'est parce que dafa am influence sur résultat final bi mon tax wax ji bëri mais la loi du jeu c'est la loi du jeu les règlements du football la. règlement yi mu ngi fi depuis Mathusalem amul ben problème. maintenant application bi su demee dafa dem ba ci fin bi mu répercuté wu parce que en réalité euh, wàccee Stade de c'est pas c'est pas réellement Stade de Mbour Jaraaf de. lan la li wax Stade de Mbour c' est Casa jamono Fatick. d' accord. résultat boobu. Mhm. PV bobu mo répercuté wu si si si si résultat wu. Stade de Mbour waaw ñoom lañu wax dañ ñu ils ne sont pas d' ci PV bobu dañuy dem euh, voir. effet la ay effet effet yooyu moo répercuté wu ci kar si kaw Stade de Mbour mais buñ ñu depuis bobu génne PV yi à wax na la dal la on joue le weekend le mardi les informations sont disponibles. Mhm. le jeudi la commission discipline se réunit la commission discipline dafa war jeudi bu nekk mu génne PV. D'accord. Avant ñu jé benen tour fek pay bi génn pourquoi mu am retard warul am retard. D'accord. Alors euh, la Ligue Pro dañuy taxaw foofu ba tey ah parce que on voit souvent des matchs yoo xam ne ne euh, comme ni nga ko waxee sànq dafay am violence de trop dafay am aussi li nga wax ne ne mooy euh, peut être point yi gën a yi positif. moy ëpp yow selon yow. Mhm. mais les autres ñi nga xamné ne ñu ngi ñu ngi sétane wala ñu ngi ci ginnaw occupé wuñu ben porte nekkuñu ci ben club wala nekkuñu ay commissaire match ñom dañu gis ne dafa des liggéey bi ligue war def dafa des de trop ci li nga xamné ne championnat du Sénégal. la ligue la ligue la ligue n'organise pas may wax ci contrôle lu Tafa. Pape c'est un journaliste. Mhm. en réalité c'est pas la ligue qui organise. D'accord, c'est la fédé. C'est les clubs. C'est les clubs. Malheureusement, clubs bi ci bon. Mhm. Moi, organisé. Journée. Journée, moi, je suis journée bi moom moo def lu ko neex le commissaire il vient. mais sous le contrôle. Euh, oui sous le contrôle bi day ko contrôle ah. bi le commissaire il vient il gère la <laughs> rencontre. oui khas bi moo nek ci public bi yoonam nek ci le service d'ordre club bi mooy commandé. donc mais le plus fa xew mais le plus fa xew aussi la Ligue Pro day sévir. Mhm. à travers ses rapports. dem superviseur moo nga gis ay matchs à huis clos. Mhm est-ce que c'est de bonne guerre c'est de c'est de bonne guerre est-ce que c'est c'est c'est vraiment encourageant ñu jouer ben match huis clos bo xamni par exemple un un un un un Jaraf. jaraaf Tëngéej wala euh, jaraaf Géejawaay jaraaf Yoff Jaraf Tëngéej Jaraf Wokam. Mhm. moitié supporters yi ñoo ñëw. waa Jaraf kese ñooy ñëw bu ñu demee géej waaye waa géej ñoy ñooy ça c'est pas du jeu. léegi lan la ligue wara def fofu exactement. ligue def ligue ligue mu ngi jéem pour pour dindi violence bi mais dafa des ba légui sanction yi du point kese du excuse-moi du xaliss bi kessé ak huis clos bi nañ dindi point yi. Nous avons les responsabilités parce que ce nga gis négatif. Mhm. parce que dafa am violence. Mhm. oui parce que si gis mhm. en terme d'image, caricaturer pourtant Pro efforts en termes d'organisation, en termes de gestion en termes de redoublement d'efforts par rapport à prise en charge mais cas donc il faut sévir. sévir nak moy comme ñu ngi sanctionné financièrement taxul ñu bay. ñu ngi ñu ngi leen di wiklo clos taxul ñu bay. nañ nangu seen point ñu xol. d' accord est ce que stade de Mbour am na am na na ko mën a avantage wala am na sens euh, ci li nga xam ne ne mu ngi koy def muy saisir euh, TAS. bon man nag moment bi ma toll nii nii. Mm. dossier bu nekk en cours du ma si mën a wax parce que tas comme waxagul te xamul lu ñuy wax mën naa wax loo xamante ni waruma ko woon wax wala ma wax loo xamante ni lii mun na influencer benn résultat ñu ne ñu ne waxoon na ko ca télé ba moo tax ma bëgg ci maandu journaliste nag moom leen neex wax lu neex man en tant que commissaire de marché dama ci bëgg maandu da ngi bëgg maandu Gabriel c' ah. est comme ça non <laughs> alors Moussafa yow mi nekk ci cœur ci cœur li nga xam ne ne moo di ah, ah, la Ligue Pro eh, ban jàngat nga am si situation bi nga xam ne stade Mbour dund na ko par rapport ak Jaraaf de Dakar. waaw comme comme li ko li ko li ko sama père waxee rek parce que eh, stade Mbour am na droit dem tas mu def parce que daa def benn recours jox ko POAM wàccee ki moo di